sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna la jagoro yaatu na asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am mbégte loolu dellusiwaat fii ci 2STV seen télévision bi ngeen tàmmoo seetaan eh, di leen nuyu di leen ziar di leen sargal émission bii di couvre fa oblige neen koy tëralee léegi bu àjjuma sunu doom Omoro ñëw defal leen cant gi samedi sunu beneen doom ñëw dimanche ma ñëw euh, jàkkaarloog yéen di leen bégal ngir gunge leen di leen gërëm nag di leen euh, xamal ni gis nañ message yi nga xam ni moom ngeen def ci serveur bi ci Facebook yi ak fépp fi nga xam ni mooy ay jotuwaay yi nga xam ni moom ngeen lañ jote fii ci 2STV tey nag euh, dañuy profité ci occasion bi du wax ñëpp joyeux Pâques fête de Pâques suñu mbokk catholique yi nga xam ni dañuy fêter Pâques euh, bien vrai que gis ngeen ni corona bi euh, moo tax événement yu bëri euh, ndeysaan mu naax saay nii waaye nag gars yi ñu ngi koy def ci seen xol di gërëm suñu mbokku catholique yi nan ko doon defee bu Pâques jotee wala noonu ñu def far ngalax di jox doomu aadama yi ren loolu yëpp amul waaye ñoo ngi ñaan lii yàlla na fi gëj donc maa ngi profité ci occasion bi. sunu abbé yi sunu pape yi ñoom ñëpp yàlla dafa leen jàmm yàlla mi am jàmm ndax ñëpp xam na ni catholique ak jullit ñoo bokk ndey ak baay boo demee Joal am na armeel yoo xam ni ah fa catholique yi tëdd foofu la jullit yi tëdd kon xam ngeen ni kon yàgg na noo bokk ndey yàgg na noo bokk baay euh, ñu ñëw nag ci info bi nga xam ne mooy corona bi fi mu toll tey ci Sénégal euh, tey euh, li nga xam ni moom la ñu enregistré ñaari kaala ñaari cas maa ngi ñaan suñu borom yàlla na dem ba ma toog fii di wax zéro cas kenn tëddutul ca hôpitaux ya donc loolu ñoo ngi ko ñaan suñu borom mën na ko te dina ko def di gërëm toujours euh, état bi nga xam ni fan yi gis na ñu ngi jël ay ceeb ak ay vivres euh, di ko distribuer ci région yi loolu lu rafet la maanaam Tambacounda Kolda dëkk yi nga xam ne daal ay région lan ñoo ngi leen di jox ay dund ndax xam na ni fi mu nekk nii liggéey amul euh, ku doon am fukk yaa ngi am ñaar euh, donc loolu état bi def ñoo ngi leen ci gërëm di leen ci sant di yokk rek ñaax ñi nga xam ne ñu ëpp la ñeneen ñi solidarité bi nga xam ne yàgg na ci suñu réew bokk ci suñu culture ñoo ngi ñaan loolu ñu gën di ci farlu di gën di ci farlu koo dimbali yàlla tax yàlla moo lay fay te loolu ñun xam nga ko nanga ko xam na ni Sénégal ndeysaan benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar euh, def lu baax yàgg na fi def lu baax yàgg na fi dëkkandoo tamit bu rafet yàgg na fi di gërëm aussi fondation boobu di servir le Sénégal te soxna njiitu réew mi jiite ko fan yi gis nañ mu def ay don de repas jox ko ñi nga xam ne mooy sécurité yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi de vingt à six heures du matin ñu taxaw ngir aar ñi nga xam ni ñooy askan wi donc loolu lu rafet la ñu ngi ko ci gërëm ah, di ko ci sant di fàttali rek euh, ñuy raxas loxo yi ak gel antiseptique saa yu ñuy dem fenn mbaa ñu laal dara rek ñu raxas ko ah ba pare di takk ay masque waaw masque di ko takk dafa am importance waaw di takk masque di ko sol ngir noyyi di ragal li nga xam ne mooy contamination yi di gërëm aussi suñu sponsor bi nga xam ni mooy Mex sécurité ñii ñoo nu jox ay masque ba kër gi yëpp fi mu nekk ñun ñëpp moom la ñuy takk incha allah signé noonu ak ñoom contrat boo xam ni dañuy. sponsorisé li nga xam ne mooy émission bi di couvre-feu oblige ñu koy def tous les dimanches tey nag émission bi ni muy tëddee sommaire bi mooy dinañ leen may ay clip ay clip yu yàgg clip yoo xam ne dañuy teg artist bi daal di koy téye daal di ubbi serveur bi ngeen wax ñu artiste bi kan la bu loolu weesoo Omaro sama doom day def kawtéef ci confinement bi pour bégal leen pour nag yeete jublu ñu ci dara nag lu yeete di leen xamal ni évasion moom tamit am na benn rubrique bu mu def pour ñi nga xam ne ñoo nga toog ca kër ga ñu bañ a jël pois lekk yi nga xam ne moom la ñuy war a jëfandikoo Fatima Silla di liggéey ci kër gi ci mbirum sport moom tamit dina ko wone dem këram mu wan ñu boo nekkee sa kër yan sponsor yan sport nga mën a jëfandikoo nga xam nga ni fi mu nekk nii kenn mënatul génn à partir de vingt léegi nag lu ñuy def njëkk ko def mooy dem régie gars yi tegal ma benn clip de sensibilisation mu ñëwaat nag xiim sama lëwal jox askan wi. bismillah auzu billah minal corona bi feebar du ay ci lapp temps bu lëmbee àdduna bawul Asie Europe Afrique tous les continents boobu kenn laa ndax dafa gaaw soyez prudent nañ ko xeex ndax ñoo ko mën set ci biir set ci biti set ci xol yi set ci xel yi set ci suñuy loxo wàññi it ni yoogu bari dakkal suñuy ndaje na ñëpp sax toog ci kër yi bu génn urgent wul nga la toogal yaa xayti moo di diggéey ministère nañ ko jëfe bàyyi coow li hey le ay grave sans yow indi ñëpp ci benn kàddu fagaroo gën faj na man maa ngi àddu ku nekk def ko xeexam jafe digga yi ma a mucc aar sa bopp aar sa am fu laay dund hey yi maa ngi xaar liggéey bi rafet na kaar na leen buur bi yàlla aar oh bii balaa na fi gaaw jóge barki maam borom Touba bii balaa na gaaw jóge barki maam borom Touba. nañu ko defee comme niñ ko waxee vingt heures su dajal sa bagage nga toogi seen kër raxas sa loxo nga toogi seen kër takkal sa marché te nga nga motu fu mbooloo di daje mu bañ a laaw man dama tiit man dama làcc fu feebar bu jóge yombu la gëm waaye bu ko gëmul nag su musi boole ñoom ñoo si biir ñaa ñoo ngi si biti ñoom ñu si bés lii fi man maa ngi waaw ndeysaan gis ngeen ko noonu artistes yi ku ci nekk yaa ngi créé di bind dugg studio démb rek je me rappelle dem naa Pikine euh, sama kër jarbaat boobu di Si Ndiaye dem def li nga xam ne mooy sama participation ci vidéo de sensibilisation bi war a génn taasukat yi def ko muy man di Secka Papa Ndiaye coppet Papa Ndiaye cu daam seen euh, ak ak kul kullim juuma képp kuy taasu rek fi mu nekk gars yi def naan benn son boo xam ni incha allah ñoo ngi koy pare di leen xamal ni Facebook l'officiel bi ubbi nañ ko seeni message déjà am na message yoo xam ne jot nañ ko dinañ ubbi serveur bi aussi ah ñëpp woote ku wootee rek ma may la lawal wala café Touba euh, di gërëm waa ñi suñ ñaari italien ah, sama jarbaa boobu di Badou Ndiaye ñoom danoo dajale seen xaalis ci seen i ñaq xale yooyu xale yu am jom waa isu ñaari tali ak Ngouda Ndiaye bi nu dajalee xaalis boobu jënd ci ay gel antiseptique wut ci li nga xam ni mooy ay masque ah, jël ay mouchoir ak lépp dugg koñ bu nekk isu ñaari tali ñu jox leen ko loolu geste bu rafet la geste bu rafet la maa ngi ci gërëm waa usine ñaari tali di ci gërëm Badou Ndiaye di ci gërëm Ngouda Ndiaye ak ki nga xam ne mooy seen yaay di ajaratu Ndeye mari Thioune jot na ni tamit ci Facebook bi ki nga xam ne mooy Papa Ndongo taalibi Serigne Saliou nekk fa nga xam ne mooy Paris moom tamit nee na mi ngi seetaan la 2STV seen émission bi nga xam ni mooy couvre-feu oblige di tamit ki nga xam ne mooy Combaan nekk Touba TV moom nee na incha allah café gii moom moo nu koy servir dinaa dem nag ba këram combaan mi nga xam ne moo nekk Touba TV ñoo ngi koy ziar di ziar waa Touba TV yépp di ci njëkkal nag ki nga xam ni mooy sama maam di alaji mbàkk yu fay mi nga xam ni ah, jumaay Masaalikul Jinaan ah ñun ne moom la ñuy sagoo képp kuy murit yaa ngi koy sagoo ku dul murit sax yaa ngi koy sagoo bàyyi Lamine Fay eh, Paate bu GFM ah moom tamit sama rakk sama xarit ah borom nga ca université moom tamit nee na mi ngi seetaan euh, couvre-feu oblige caat euh, tey la anniversaire am caat taalibe Serigne Saliou Mbacké joyeux anniversaire longue vie prospérité mbokku de bonheur loo dund doyul taalibe Serigne Saliou boobu di ko ki nga xam ne tamit mooy Serigne Saliou njurul moom tamit nee na mi ngi ñuy bitim réew waaye saa yu émission bi jotee amul nelaw day seetaan la 2STV yi donc sëñ Saliou njurul moom tamit ñoo ngi lay ziar euh, Aliou Diarra moom Daaru Jolof la nekk nee na état bi nanu xalaat ñoom tam ñi nga xam ni mooy éleveurs yi éleveurs yi donc nan lañ ci xalaat ndax fi mu nekk nii liggéey bi demeetul noonu lu ñuy jox jur gi day metti ci ñoom kon nag nanu dugal benn vidéo de sensibilisation ñëwaat ci kanam ñu bégal leen salaamaaleykum euh, Sénégal asalaamaaleykum euh, Abdou Salam Diallo man la Mamadou Lamine Maïga sa mag euh, maa ngi lay gërëm di la sant ci émission bi nga xam ne bii yéen a ngi koy def ci 2STV bi donc mu nekk lu am solo di wax ci maanaam jàngoro ji fi nekk di coronavirus di ñaax rek di ñaaxaat Sénégalais yi di ñaaxaat ñëpp ñu ñu ñu ñu gën a lu gën a gën a vraiment jàpp ci affaire yi su ko defee mbir yi teel fi jógee. Euh, émission bu am solo la wax dëgg yàlla di ñaan yàlla yàlla teggil ñu ko teggil ko bépp doomu aadama ci barke Seydina Mohamed euh, ci barki maam Borom tubaa barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Fallou Mbacke barke sëñ Baara Mbacke merci beaucoup am na solo trop émission bi kontaan naa ci lool kontaan naa merci. asalaamaaleykum waa Sénégal man la Guigui Sarr maa ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen seetaan couvre-feu oblige sur la 2 yi ak salaam Diallo Papa salaam nag dina waxtaanee li nga xamante ne mooy coronavirus feebar bi nga xamante ne moo lëmbee àdduna jaaxal waa àddina li koy faagaagal nag ci lu wóor mooy ngeen raxas seen loxo yi fépp foo leen toll boo leen takkee ay masques ngeen jéem ko changé tous les trois heures fagarukat moo gën faju ànd rahmatullah asalaamaaleykum waa senegal ñu ngi leen di ñaax ñun waa réew tribunal di leen jéggalu ngir yàlla pour jàppale ministère jàppale gouvernement jàppale suñu bopp mooy ñu toog suñu kër ñun waa réew da ñu ngi toog suñuy kër restez chez vous njoodee galle moon bandiraaɓe fulɓe njoodee galle moon aanan iyo anacqulom iyo hawelaha saxmualatane pasko hawelaha bikosongeya wayko dafee daw ci fi dàllami yow nag ñu xas da tudd nañ la màbbul nañ la def nañ la nekk da tu dangay toog suñ takkee suñ masque di toog ci biir kër yi di xasu ba set boobaa lu metti metti li ngay dem te say pàcc dina dem xaaral moom tamit. waaw ndeysaan gis ngeen ko noonu pour vous dire que ñëpp ñu ngi jàpp ci sensibilisation bi nga xam ni euh, mooy pour. génne corona ci àdduna bu wërngal képp gis ngeen kooku noonu Mamadou Lamine Mayga Mamadou Lamine Mayga bi nekkoon super jamono sunu mag sunu xarit ñu yàgg lool mi ngi doon seetaan depuis itali la def vidéo daal di koy dugal ci serveur bi daal ñu koy envoyé moom mi ngi xam ne kon doomu réew mi la lu ñor doomu aadama yi ñor réewam moo ko ñor donc ga maa ngi lay ziar di la gërëm yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay keneen ki di star bu mag boobu ki nga xam ne mooy Guigui moom tamit. Euh, maa ngi koy wax joyeux Pâques moom tamit xam naa sama ngalax rek lu ma ko jot waaye gigi sañse bi rafet na video bi rafet na maa ngi lay gërëm di la sant lawal bii nag comme que mayoo ma ngalax ah maa ngi koy may ki nga xam ne mooy Philippe Sarr di sa frère ah chéri maman Guèye ah nekk ca France ca Sarcelles euh, di ko may tamit ki nga xam ne mooy Amina chéri Babacar gigi yàlla muy am fay yàlla na la yàlla fay xale bu baax nga ko yiw nga yow tamit ci lii lu baax rek nga dëkk sensibilisation lépp lu Sénégal askan wi taxaw nga taxaw si yàlla may am fay yàlla na la yàlla fay di gërëm xale yooyu nga gis aussi famille boobu avant ñuy añ ku ci nekk dem raxas sa loxo yii yëpp ay video la yoo xam ni ñoom ñoo koy def envoyé ma ko ci serveur bi waa télé bi daal ma koy jox maa ngi ñaan euh, numéro boobu ñu doon jox ah numéro boobu du sama numéro ngir yàlla vidéo rek la vidéo boo leen dugalee vidéo jàllale ko askan wi ah ngeen joxe seen participation xale bu ndaw boobu tamit ndeysaan gis nga ko sax dafa dotom waaye gis nga ko moom tamit mi ngi sensibiliser xale yu ndaw yi sax xam na li xew donc ñoo ngi leen ciy gërëm di leen sant yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay ñu dool itam ci Facebook bi rek réaction yi gars yi nee nañ salaam jox ma lëwal dinaa leen jox lëwal El Hadj moom Thiès dëkk nee na moom ndeysaan day seetaan émission bi ba nelaw kon El Hadj Malick sunu boobu ñoo ngi koy gërëm Iba Mar Jong moom tamit Tëngéej la dëkk waa Tëngéej am na ay problème ñun jànkoon teel bu ci kanamee dinañ ko jéem a jot téléphone moom tamit mu dugg Iba Mar Jong doomu Tëngéej bu baax boobu ki nga xam tamit mooy Xaban Fay ah jëkkëru Binta Njaay moom dafa am ñetti doom ca Touba euh, ñetti doom yi mi ngi ko am le 4 avril donc bi mu amee ñetti doom yi mu benn doom bi mi ngi ko tuddee ki nga xam ne mooy président Macky Sall beneen doom bi mu ngi ko tudd Abdoulaye Diouf saar la ko tuddee ministre euh, de la santé beneen doom bi bu jigéen bi mu ngi ko tuddee soxna Awa Ndiaye bi nga xam ni mooy infirmière bi nga xam ne moo ko jàppale ba muy mucc donc kooku di xaban fay moom tamit ñoo ngi koy gërëm di ko sant léegi nag euh, ñu dem xool évasion xool lan la ñuy proposé ñu koy jëfandikoo ci confinement bi nga xam ne moo am évasion. maaleykum salaam salaamaaleykum maaleykum salaam Pape Salam nuyu naa la lu bëri bëri Pape Salam nooy dundee sa confinement ah man de maa ngi sama kër actuellement mais nag confinement bi métti na mais nañ jéem a respecter les consignes rek bu ñu ko defee rek yàlla peut-être dinañu suturaal incha allah ba ñu génn ci li ci jàmm Pape Salam man nag dama am benn problème ci confinement bi. dama commencé patax gis nga ma commencé tol <laughs> gis nga ma de baa ngi commencé am biir di commencé am yaram te moo tax nag tey ma dem def sama recherche Pape Salam indi li nga xamante ni moom mooy suñu mbokki téléspectateurs yi sama moroomu jigéen yi mel ni man ma indi leen benn astuce boo xamante ni ingrédient la boo xam ne kër goo dem di nga ko fa fekk waañ boo dugg mi ngi fa ndax ingrédient bii Papa Salam yow xam nga ko ndax nee nañ la ceebu jën dee ko roof ba sa jëkkër loolu ma leen indil moom mooy persil percé bu ko gisee moo nekk nii gis nga ko ni xam nga ni lii képp kuy togg sa ceebu jën ku nekk baax na ci papa salam percé nag dafa nekk benn euh, ingrédient boo xam ne dafa bëri ay vertu médicinale dafa nekk euh, ingrédient boo xam ne dafa baax ci yaram te li mu mën a faj dafa bëri rawatina ci ñi nga xamante ne dañu bëgg maigrir te defuñu sport amuñu temps def sport peut-être wala peut-être amuñu yenn euh, occasion pour def sport donc bii c'est très facile à utiliser bu fekkee da nga bëgg a perte poids ci li nga xamante ne moom mooy persil bi da koy baxal boo koy baxal nag de préférence nga def ko feu boo ko defee feu bàyyi ko mu bax benn 15 euh, à 20 minutes après nga teggi ko boo ko teggee nga teg ko bàyyi ko mu reposer pendant 20 minutes bu reposer rek ba sedd guy ba pare après nga jël ko nga commencer ko di ko naan boo ko defaree man nag dama leen si jiitu ndax comme amuñu temps bu bëri moo tax boo ko baxalee ba def ko sa taas ba pare nii lay mel gis nga ko lii mooy résultat final bi ngay obtenir moom mooy euh, nga def mu nekk mu nekk sa te infusion boo xamante ne danga koy naan tous les matins mais de préférence à jeûne balaa ngay lekk dara balaa ngay naan dara boo yeewoo nga koy naan boo koy faral di def di nga perte poids te di nga gis ni sa graisse yëpp dina dañ te yamul foofu tamit li nga xam ne moom la persil di def ci yaram ndax dafay xeex li nga xamante ne moom mooy contre cellulite cellulite nag bu ngeen ko déggee ñun ñuy faral di sol talon lu bëri jigéen ñi faral di sol talon xam nañu fi may waxee xam nañ bu baax lan mooy cellulite cellulite yi boo faral di utiliser persil bi aussi dina tax doo am cellulite te dina dafa baax aussi ci li nga xamante ne moom mooy ay infection urinaire ñi nga xam dañuy faral di am infection bu ngeen di utiliser nga xam ne mooy persil du ngeen ko faral di am encore mieux li nga xam ne moom la persil di def ci ci yaramu doomu aadama moom mooy surtout ñi nga xam dañuy faral di am ay mauvaise haleine nag mauvaise haleine doo nga ko déggee moom mooy xeetu gémmiñ da ngay jël say quelques euh, euh, persil comme ça nga jël ko di ko yéey gis nga bis boo koy faral di def doo am benn xeetu gémmiñ te di am bonne haleine à la fin donc Papa Salam li laa indiloo li nga xamante ni moom mooy suñu mbokku jigéen ñi ñu koy faral di jëfandikoo te bu ngeen koy faral di utiliser incha allah di ngeen ci gis ay résultats tàmmoo leen di ko def chaque matin ak confinement bi di ngeen gis ni léegi. seen yaram dina macha allah te après confinement bi seen dina leen jot mais avant ñuy dem juste comme ni ma ko waxee woon léegi au début Papa Salam ni ma waxoon ni leen euh, nañu respecté consignes yi nañuy faral di utiliser li nga xamante ni moom mooy suñu gel euh, euh, bactérie nga xamante ni mooy gel antibactérien bi. di raxas faral raxas suñuy loxo ak saabu fi ñu toll te bis bu ñuy génn aussi ñuy beneen fàtte di utiliser li nga xam ne moom mooy suñu ay masque ndax masque yi daf ñuy jàppale dinañu dimbale te mën nañu sauver tamit ci lu bëri bëri entre contre le coronavirus ensemble tous nous luttons contre le Covid 19. <laughs> mais Eva doon nit évasion évasion daal doon nit man daal xam naa ni Eva fi mu nekk ni daal moom daal ay ñaxam la teg jël teem. teg waaye bi lay kenn sama ataaya ji di leen xamal nag ah maa ngi woo sponsor yi ah, pour ataaya ji ah ataaya ji faw mu am sponsor gel antiseptique bi faw mu am sponsor café Touba bi am na sponsor ba pare sëñ Touba na mu koy dox donc kon gis ngeen mag sécurité ah moom mooy sponsorisé sama émission bii di couvre-feu oblige tous les dimanches tous les dimanches ngeen jàkkaarloo ak ki nga xam ni mooy Salam Diallo léegi nag dañuy teg benn vidéo souvenir fàttali ko donc bu ñu tegee clip bi am na ku ciy fecc boo leen gisee ki ciy fecc ngeen woo ma ni ma nag kii diw la ku ci gañe rek faw ñu jox la li nga xam ni moom mooy mbaquus waaye nag di leen xamal ni kawtif baa ngi waaj a commencé gis naa léegi Omaro mi ngi toog di defal microom sañ sa deux pièces bu baax gani laa fas yéene nag def kawtif confinement li nga xam ni moo nekk ci corona bi kon li ñuy def mooy ngeen may ma clip boobu sunu yaay jooju woy yaay Sidi Samb di Daaro Mbay ñu xool kan moo ciy fecc élément. asalaamaaleykum Omaro maa ngi lay nuyu di la ziar yaa ngi en direct sur la 2STV sa télé bi nga xam ne yaay capitaine bi. jërëjëf maa ngi lay doon capitaine bi doon dugal kat doon capitaine ak doon gardien yaay soo papa. ta loolu sax jour wax la ko du télévision ndax ba ñu may jënd ci jëppal yaa ngi ci baax toog mu nekk loo xam ne démb la la kon yàlla bi yaay suma bàyyi tey yaay suma bàyyi ëllëg yaa ko ak mbégte bu baax ci seen émission bu mag bii nga xam ne mooy Google hmm. ma yëgal la ne tey. indil naa la ceeb yàpp gi naan doom soos. indil naa la maafe. la laa koy def ak sama yàlla. <laughs> léegi nag euh, dañuy dugg ci suñu rubrique bi nga xam ne sama doom ji moom koy defal di euh, kawteef euh, bu ne confinement am yoo xam ne dafay xew ci dëkk bi loolu nag sama doom Omaro laa bàyyi comme nan ko doon defee ca Vouzenou mu neex ñëpp saf ñëpp ma ne ko nag doom dama bëgg nga defal ma loolu ci couvre-feu oblige gannaaw ba mu defee lu rafet li nga xam ni moom la def ajjuma ñëpp dëkk kilifa diine yëpp dëkk ma ne nag tey Omaro kawteef confinement ana loo ci wax. waaw foofu salaam tey kaw teef confinement bi moom du sedd tey duñu ko jar. doo ko jar déedéet doo ko jar. doo ko jar doo ko njar ko tuuti rek déedéet papa dama ko jar dama koy safal ba mu saf barkàlla macha allah nar yow xam nga ni yow seen mbir dama ci sawar na xol naa tey jëlee ak yéen rawatina nag ñu bokk fii ci télévision bu mag bi nga xam ne mooy daan des Mm. du nuyu nag suñu téléspectateurs yëpp di leen ñaanal jàmm lii rek nu war mooy ñoom bu ñu nekk ci kër yi mm. ñun ñu nekk ci télé bi di leen bégal te mm. yàlla rek a tax ndax ñoom amuñu ku dul ñun waaye ñun suñu coono ak suñu liggéey kenn waralu ko ku dul ñoom Abou Salam dangay ñëw tey ci vidéo bu njëkk bi ma la indi tey ci Kawtef oblige Kawtef oblige laa ko tuddee par dañu ne confinement oblige ma la it Kawtef oblige président Alpha Condé bu Guinée moo ñëw ñun ci séance séance wu caas boo xam ne waaw xaw naa bul dee waay baal ndox waay baal science wu li waral mu doon science wu yees mooy feebar wi nga xam ne mooy coronavirus gis nañ na boobu ak léegi ñi nga xam ne ñooy eh, docteurs yi ak médecins yi ñu ngi ñëw ñun ci paj mi ak ci li nga xam ne mooy waaye daf ci loo xam ne eh, président Alpha Condé moo ko leeral askanu Guinée nee na feebar bii di coronavirus ni ci bëgg mucc nañu takk masque loolu wax nañu ko fii Sénégal. Mhm. nañu raxas seen loxo ak gel bi. Mhm. ak l'eau de javel ak savon. loolu wax nañu ko fii ci réew Sénégal. waaye beneen bu yees bi mu ci dolli ci wàllu science bu mu durweel boppam te ñu nekk seeguñ ja mooy mentalaatoo. mentalaatoo daal wax mentalaatoo. waaw mentalaatoo ndeysaan alfa daal nee na alfa daal nee na mentalaatoo yi nan ko nan koy ñuux ci bakkan yi kon yaa ngi vidéo alpha ko de alpha kon kon ñu xool vidéo bi xool nan la ko waxee del siwaat xool vidéo bi alpha daal nee na ah. noonu ñoox dalaa toog ci bakkan yi tubarkàlla noonu ko ñoox ci bakkan bi ñoox ko ci nopp yi dama xool alpha bi ñëw qui se lave les mains plusieurs fois par jour et qui ne se colle pas et qui n'y ait pas de regroupement qui est un mètre entre eux et ceux qui peuvent acheter de mentolatum qui aient de mentolatum pour mettre dans le nez ensuite boire su. Moro sama doom kontaan naa seetaan naa vidéo bi waaye euh, euh, président Guinée bi kenn dàqu ko ci àddina alors loo ci wax. non Alpha dafa neex Alpha moom Alpha Mbacke Sëñ Touba ne ko Guinée fal huit mandats huit mandats man fi ñàkk parce que Alpha day faj de Alpha day faj nit nee na daal métratum moom mënu cee ñàkk moom nan koy ñox ci bakkan di ko ñox ci nopp yi te toog jàkkaarloo jàkkaarloo ngelaw bi dafa xaar yàlla Alpha jërëjëf. lool dul doyul Alpha Condé yàlla sa jàmm yàgg. léegi papa ma ñëw yow ñaareelu kaaw yi. waaw. waaw ne kawteef oblige. waaw ne confinement oblige dana ñëw yow ci ñaareelu ponk bi. Hmm. kii nag xam naa rek daa mel ni man. waaw di ab di ab euh, ab ab ab ab ku neex rek tubarkaal la. boo xam ne daal moom dara safu ko rek. lu mu bëgg wax da koy wax yoonam ci demee. day wax xaritam ci message vocal. ne ko damay dégg ci télé bi ministre bi di wax cas communautaire cas communautaire moom mooy cas yi ci commune <laughs> nga dégg bu baax. nee na ndax cas communautaire mooy cas ci commune yi. ah nee waaw waaw. bu fekkee communautaire moom mooy cas yi ci commune yi. nan waaj te xam ne cas mairie dana am ak cas département. <laughs> ah ku ne commune nag di nga ne mairie di nga département. ma bëgg koo xamal ni tubarkàlla macha allah li waral ñuy wax cas commune cas communautaire euh, euh, journaliste bu mag ba di El Hadj Moussa Sène nga xam ne moo nëpp xam-xam ci wàllu woowu ndax moo yëngu ci wàllu médecine bi ma ci waxtaan ak moom daf ma ko leeral daf ma ne waroo ma ne ko daal mënuma cas communautaire mooy cas bi sokkeekoo ci bi mooy cas bi nga xam ne nit ki xam na ko am na ko te demul dikkul fii la ko amee ci kon ñu déglu élément élément bi waaw dañ dem déglu élément bi ci leen soit. ayca ma yóbbu ça va nanga mooy lan mooy yi am ci commune yi wala ñun de yàlla baax na ba du amuñu commune ñun Mbour région. mais Omaro Omaro kii kenn gën ko neex ci àddina kii de xamul sax li xew. non non kii dafa neex kii bañ ci dara yoonum ci demee kii bañu ci dara kii yoonum ci demee nee na cas ndax mooy cas yi nekk ci commune bi léegi ma ko yëgal ne mbokk bi. cas communautaire. xam ne moo feeñ ci réew mi. Euh. ndax bi ñu ne communauté. mooy mooy mooy mooy mooy mbooloo mi yeewoo ci benn commune. waaw te nag communauté réew mi Sénégal la moo tax ñu wax cas communautaire. waaw cas communautaire yooyu nag tubarkalla. waaw ñi nekk ci réew mi ñoo koy am di ko wàllaat ñi nekk ci réew mi. waaw waaw donc importé. dëgg la ñëwee ci cas bi nga xam ne mooy cas importé mooy cas bi nga xam ne tey nit da ko am jóge Italie. mbaa mu jóge Espagne mbaa mu jóge France mbaa Londres mbaa Amérique mbaa Angleterre mbaa Gabon Côte d'Ivoire ñëw indi ko fii ci réewu Sénégal. kooku mooy ka importé. mooy ka bi nga xam ne dañu koo jëlee ci dëkk indi ko ci dëkk. mais ka communautaire mooy cas bi nga xam ne ci dëkk bi la feeñee ñu wàllaat ko waa dëkk. dëgg la dëgg la yàlla na ci la ñu ko jagleel ak ñeneen ñi nga xam ne mbir mi jaaxal na leen am amuñu ci ay pexe ñu xam ne mbir mi noonu la demee. dëgg la dëgg la dëgg la léegi euh, président bi nga xam daf doon euh, entraîné ci biir bureau nag président ougandais bi. kaw kaw. dato. loolu mooy élément bi nga xam ne moo topp ci ñetteelu élément bi. waaw ndax élément yi li ma la indi tey ñeent la woon ñaare jàll na bii mooy ñetteel bi. maa ngi ñëw ci ñeenteel bi waaye seegul. président boobu nga xam ne moo jiite réewu Ouganda dégg nga li mu dégg a ko bu baax. nee na sama président yi ak ñi xam ne maa ngi ñoo ma yam jiite réew nanu faralal li nga xam ne mooy sport. nanu ko ñemee nanu ñemee sport nanu ñemee a avant nanu ñemee ab demi ñëw. yamul ci wax ko moom du ko jëf. woo caméra yi caméra yi ñëw gars yi tànn tàkk mu daal di taxaw daal di ab avant. waaw ah, na nag lancé na appel président bu ñemee boppam te dëggal boppam na def ni moom ma ko yëgal ne nag tubarkàlla ñun nag suñu président Sall ngaari chéri ajaratu ma dem fay sàll kooku tubarkaal la xajul ci li nga xam ne mooy ay appui avant ak ak ak abdominaux. kooku trois kilomètres la daw barki de moo jaay ci Fatick. dëgg la. waaw ñëpp dikk teg seen bët ci élection yi ci campagne yi weesu ànd ak la muy des forma tarba trois kilomètres kenn tëluwuma maa ngi taxaw maa ngi fekkee. Ah? lu ma taar trois kilomètres le président xuus dugg ci mboolam yi. garde rapprochée yi dal ci kaw mu ne ni ba wax ta aj mu xuus jàll waaw mu jàll ñun président daa am doole biir am doole kenn moom kon yow président Ouganda booy waneel ko di tiitaru ci Abdou Mino xam nga lu fi xew Abdou Mino toog ci sa bureau ak di appui avant yomb na wàccal def li président Macky 3 kilomètres na président Macky Sall def ko boo ko defee nag ñu doog a xam ne nag naanaan nga waaye fekk na boo ah, président yi ngay tëkku ak di leen lancé di leen lancé défi ak di leen gaarawaale te def ay yëf yénne ci ko Sall président Macky Sall bokk ci kooku naanaan la kooku naanaan la kooku mooy président après indépendance tubarkalla xale bu tuuti la li mu bëgg lépp mënal na ko boppam yàlla na jàmmam yàgg amiin waaw ni nga ko waxee noonu rafet na rafet na moom kenn du moom euh, président Ouganda nan ko bàyyi rek muy wax donc euh, lii yëpp buñ koy def rek pour euh, wéttali doomu aadama yi ci kër gi ndax confinement la nekk corona bi daal di yëngal lépp moo waral émission yi di gërëm sama doom ji nga xam ne mooy omoro lii muy def ndeysaan kontaan nañ ci trop man fi mu nekk doyalu ma ana ban élément moo ci topp Omaro Papa Salam élément bi ki rek waa ji ak la boo xam ne mi ngi toog maa ngi élément bi sama téléphone di ko seddaan mm-hmm. xam naa dama lay bàyyi après nga may ko télé bi waaye waa ji ak tubaab bu toog jël ab gelam diw ci loxoom. Mhm. bi mu noppee diw ci télécommande am. Mhm. bi mu noppee diw ci paquet cigarette bi. Mhm. bi mu paree daal di jël cigarette bi rek taal daal di tux daal di explosé. Eh! nga loolu am njàngat la. waaw loolu am njàngat la. waaw loolu bi montage la du vidéo réel du dëgg. waaw vidéo la xam ne dañ koo monté. li waral ñu monté ko dafa am lu mu bëgg jàngal nit ñi. mooy. ab sab gel ci sa kër baa ci sa bureau baa ci sa néeg baa fu mu a doon di raaj say loxo lu baax la waaye it di ko def ci say télécommande ak feneen fooy toog ak fooy jàpp lu baax la mhm. waaye fexe it bu duggoon ci yow fa muy mane ci yow ngir jéem laa daan songu am ci sa kaw dëgg nga joxe mu bañ faa jël ñu ci say poumon te ku ne xam na ne moom ennemi poumon bi gën a mag ci àdduna cigarette la dëgg la du lebal ko moom chaque jour nga dégg médecin yi génn na bàyyi leen tux mi ndax li muy yàq ci jëmmi doomi aadama li ci gën a gaaw gën cee leer poumon la. dëgg la sa ñaari yi lay fekk di ko bënn di ko sol ndox di ko wal di ko dëpp ba mu mel ni daje. waaw xëy suba rek sa baa yi di ko sa soto baa doo xamante foo ne. faatu xaj na gàtt nu la xaj na ka kon nanu jàpp ni lii am njàngat la moo xam ni day wane ni feebar bi di coronavirus ci ñi mu gën a aay mooy ñiy tox. la. kon ñu dox loo xam ne di diwoo gel génnewu leen ci. dëgg la di diw di di di piis gel ya fu ne. Hmm. fa ñu jàpp ak fa ñuy fa fa ñuy teeg fa ñuy toog génnewu leen ci. la leen ci génnee mooy bàyyi sigaret. Hmm. am naa gàtt la diw nga sa loxo. baax na diw nga fi ngay toog diw nga sa télécommande ba diwaale sa sigaret mais temps nga explosé. ça veut dire li nga bàyyi ci biti jàpp ne moo lay aar li la ci sa biir dina lor ko. dëgg la la.

dëgg la vidéo la boo xam ne day ñàngat comme ni nga ko waxee rek day jàngalaate di yeetewaate effectivement euh, ñoo ngi la ciy gërëm la sant di la xamal ne sax xarit évasion dafa def moom tamit benn vidéo de sensibilisation euh, daal di jël përsi jël tee ak ndox tàngal ngir confinement bi ku ci nekk di may maytoo lekk pour am yaram mbaa ay feebar ana loolu sa loo noo ko gisee ak sa jigéen boobu di évasion. am na loolu li ma ci wax mooy évasion bu ñu ah fii moromam newu fi bu nu fontoo laa bu bëggee régime bu mu def ngir élection miss yi muy def ak mannequinat yi na ko def damay nit ñi jàmm fii kenn naan fi ay pirseg ay téye yow nit ñi ngi tiit ba koo ci laal mu dee nga koy wax ay autorisé ba waxi jeex élection bu mu fontoon nit ñi nanu may jàmm naanu nu persi naanu nu tee naanu nu ko tey naanu nu ko ëllëg dañuy lekk ci ceeb ba suur ñoñ ci ganaar yi béy ci tufe ba mu neex boole pompiteer ju bari akub soos tey sa sëriñ bi naan du jeex du jeex du sa jeex du jeex du jeex du <laughs> kontaan man yàlla yàlla yokk sa jàmm yow réew mi yëpp la bëgg yow ñëpp la bëgg yow ñëpp la bëgg nitu ajjana nga ñoo lay gërëm di la sant maa ngi lay wax nag ni que am na lu ma la dencal. Papa Salam. ah. ñun ma maa ngi koy jaawoo. sama xarit bi jaawoo. jaaw baax na nuyu ma ko nuyu jaawoo ñoo ngi lay nuyu Omaro may kilibu ki nga xam ni mooy Galas Bongo lu mu woy ci corona bi. waaw waaw ndeysaan koo koy galas bongo di sama doom di sama xarit bëgg ma lool xale bu am jom ci li muy def ah, ñoom ñëpp nag xale yi def bongo ñëpp ah ki nga xam ne tamit mooy doomu mbayang seen jooju surtout yaa jàppa bi moom tamit ñoo ngi xaar kilibam ndeysaan ah, galas bongo aw ma sa fay yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay borom kër gi nag El Hadj Ndiaye nee na dafa teg ba cinq million meilleur vidéo clip humour maanaam ay maye ah ak yu neex yooyu ak clip de sensibilisation ci corona bi képp koo xam ne def na vidéo boo ko envoyé ci sama serveur bi dinañ def sélection dinañ la fay un million lan lay may ba cinq million loolu El Hadj Ndiaye moo ko wax chère madame Ndiaye euh, donc Omaro Omaro bi lay Omaro Omaro yaay gor Omaro dëkk baa ngi riir Facebook bi mi ngi toj ñépp yow la ñuy bégee yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay euh, léegi nag euh, ñu dugg ubbi serveur bi ngeen wax mag kooku di fecc noonu kan la déjà am na ñoo xam ne réagir nan ku tudd Doudou faal réagir na léegi nii Doudou Fall nee na kooku di fecc noonu Mori Thioune la waaw Mori doomu euh, sama papa maam les Thioune la di rakk ci Ndeye Marie Thioune donc nee na Mori Thioune la kooku nag sol kasket bi toog jàkk dend ak euh, animateurs yi Youssou nduur la moom tamit Youssou Ndour moo toogoon foofu donc nee na Mori Thioune la euh, ki nga xam ne mooy Ibrahima Ndiassane Ibrahima Njaasaan la dëkk moom nee na naa ko may kaasu ataaya Ibrahima xaaral ma xiimal la xiimal waa Njaasaan yépp di leen ziar donc Ibrahima ak waa Njaasaan yéen a moom lëwal bii ki nga xam ne mooy Siré Ba ah moom nee na Omoro du gor Siré bàyyil sama doom bàyyil Omoro waaw kon waa kay gars yi kalal leen ma foofu fecckat bi ngeen waa kay kalal ma foofu ma teel ma teel ma. dugg leen ci serveur bi ngeen woote léegi wax ma kii kan la ma jox leen mbaqus tout suite waaw ubbi la ma téléphone yi ubbi la ma téléphone yi ubbi la ma téléphone yi décroché la ma téléphone yi ubbi la ma téléphone yi allo. allo yi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo tudd ak fooy wootee. waaw man maa ngi tudd Kaja di oote Louga. déggu ma yëkkatal kàddu gu tuuti rek nga baal ma. Kaja laa tudd di oote Louga Louga loo. ah di wootee Louga Louga ah, eh, <laughs> ñoo ngi ziar. Eh, yal na yàlla nangu ziar. waaw léegi eh, ban message ngay njëkk a joxe ndax li nu fi teg mooy xeex. coronavirus jóge ci réew mi en tant que jigéen ngeen yor kër ban message nga may njëkk jox avant nga may wax kii kii di fecc kan la. waaw waa li ñu xam ci Covid 19 bi di feebar bi bu ñu jaaxal daal. Mhm. mais yàlla ko fi wàcce te yàlla incha allah dana ko fi faxal. alhamdulilah amiin amiin mais mesure préventive yi nga xamee ni war nañ ko jël. Mhm. en premier lieu mooy set. dëgg la. nanu set daal nanu set. dëgg la. waaw jërëjëf jërëjëf. Mm-hmm. Euh, clip bii nga gis waa ji di fecc kan la. waaw kii di fecc parce que clip bi daf ma neex. waaw. parce que dañu dëkk Njàmbur. waaw. Adja Daaro Mbay way doomu Njàmbur dëgg la. donc clip bi clip bu ñu neex la. ndeysaan. en même temps mu ci woy sama maam. waaw sama benn xarit boo xam ne Adja Caaru Mbooj mooy maamam. day jooy di yaayam. ndeysaan. waaw clip bi mës na dugg nag. waaye ki koy fecc nag Salam Diallo la. Euh, nga ni. ki fe ki koy fecc Salam Diallo la. Salam Diallo man si. ah. man Salam Diallo. Salam Diallo bi ma jàkkaarloo nii deux heures. Ah. d'accord jërëjëf nuyul ma waa Njàmbur Njaay. yàlla mi am ko yàlla na la yàlla fay. kii nga ni Salam Diallo man la. Salam Diallo. ok jël xaar ma may la kaasu léegi ñu jël sa numéro bu fekkee na nga gagné ah ñu woo rek jox la waaye man de. Ah, mm. ah waaw ba tey rek yàlla na la yàlla fay waaye nag. tooñ nga ma de. <laughs> kaas bi maa la ko may di ko maa la may kaas bi di ko may waa waa doomu njàmbur yaay ñëpp waa Lougaloo. amiin amiin. jërëjëf. merci merci merci. ndeysaan kontaan nan ndeysaan dégg ngeen wax ju rafet jooju soxna si ndeysaan wax ji rafet na sell na tey na waa lugaloo ñoo ngi leen de siyaar waa Njàmbur Njaay sama xarit moo du ah képp koo xam ni dëkk na Njàmbur wala ci ñi nga xam ne ñoo dend rek ñoo ngi lay gërëm di la sant ah di tamit ci Facebook bi dafa mel ni am na keneen ko may woo téléphone allo bisimilah allo waaw kooku génn na. donc euh, Doudou Fall moom nee na Mori Thioune la Samba Diallo moom tamit nee na kii Ndongo Mbaye la kii fecc noonu Ndongo Mbaye la ku tudd Adama Dia moom nee na euh, Fatima Silla dañ ko namm ci ay sport yow da nga am xam-xam parce que Fatima dina dugg léegi won la ci confinement bi boo toogee sa kër yan exercice nga mën a def pour garder la forme ki nga xam ni tamit mooy Ali Ndiaye moom nee na Café la bëgg kon Ali dinaa la xele léegi café Touba ki nga xam ni tamit mooy Kole fay Cobra boutique moom tamit euh, nee na mu ngi seetaan suñu émission dina sponsoriser li nga xam ne mooy suñu émission Cobra boutique ah sponsorisme sponsorisel ma li nga xam ni mooy couvre fa oblige comme ni ma ko Souleymane waxee allo bisimilah. allo. oui allo. soxna si nan nga tudd ak fay wootee. man Yaram mbaw laa tudd maa ngi ootee Almadi 2 Rufisque. Almadi 2. Rufisque. ah Mbow nga sant loo bokk ak mbaw Mbow. Daouda Mbow ah peut-être ñoo bokk mais xaw ma fa. maam ah, waaw ah, d'accord. Uh-huh. Daouda waaw man yaayam ñoo bokkoon classe. ah ok euh, lan mooy message bi nga xam ne moom nga war a passer message de sensibilisation ci feebar bi mu jógee Sénégal te bu ci kanam nga wax ma fecckat bi kan la. waaw message euh, phare bi ñu war a passé moom mooy restez chez mhm. waaw après ndax man fecckat bi Gallo Thiello laa yaakaar ni moom la. fecckat bi kan la. Euh, Gallo Thiello. Daba Sey. non Gallo Gallo. ah Gallo Thiello. waaw. Eh, waaw waaw ma bind sa tur. waaw waaw waaw waaw Mbow Ngala Mbow Ngala nee na Gallo Thiello la d'accord kon nag. dama lay may tamit kaasu ataaya yow ak waa Almadi 2 ngeen ah. naan lawal ah. d'accord. Eh, koo dendal noonu. suma benn xarit laa dendee. sa xarit la bu góor wala bu jigéen. bu jigéen. ah daf la seet si wala ci kër gi la dëkk. ah. daf la seet si. moom moom dafa waaw moom ci kër gi la dëkk. ah na toog foofu ba 6 heures du matin jot de. yi moom kañ day toog fi ba ñu confinement bi jeex. ah moo gën di sinon rek ah, <laughs> donc kon ñaari kaas ataay yi. Ah. maa leen ko may. merci beaucoup. yàlla na sa jàmm yàgg. ah yow itam yàlla sa jàmm yàgg. ndeysaan jërëjëf. Ah, ñooñu waa Almadies deux lan euh, ñoo ngi leen di gërëm di leen wax rek mën ngeen woo tey joxe seen i seen réaction ah. képp koo xam ne am na message boo xam ni moom ngay passé euh, maa ngi nii ah, seen xarit seen doomu ndey Salam Diallo euh, fii ci 2STV seen émission bi nga xam ni mooy couvre-feu oblige léegi nag serveur bi bu ci kanamee rek après loolu damay wane itam benn clip bu yàgg benn clip bu yàgg am. benn waay joo xam ne kilifa la léegi ci réew mi mu ngi ci clip bi clip bu Omar Pène la nag ah bu fekkee gars yi pare ngeen Sidi yaak paamaay pare ngeen ngeen may ma clip bu Omar Pène boobu ma wone booy bi ci nekk nekk léegi un DG ayca ma may non lii lii kenn mënu ko wax man daal dama bëgg léegi dinaa recenser clip yu bëri teg ko ngeen gis ay kilifa yu mag yoo xam ne tey ay kilifa lan ci ñi ngi ci clip yi Omar Pène yal na yàlla guddal sa fan li nga bëgg yaa ko xam vraiment tu toujours œuvré pour le bien di Sénégal man ku la bëgg laa maa ngi ziar waa Pikine euh, euh, sa sœur boobu di Ndeye Daba ah Aji Daba ah Aji Daba xar euh, rakk Omar Pène la ñoo ngi koy ziar Galas Bongo jërëjëf vieux ñaa Bongo moom tam ñu ngi koy gërëm di gërëm soxna Fat Si mi nga xam ni Dabaax Malick mooy maamam quarante ans zéro faute waaw kooku sëñ bay Abdoy baayam man saa yéen ko waxee sama xel dem ci ki nga xam ni mooy Ndeye Marie Thioune Chéri Souleymane asalaamaaleykum alo allo oui. soxna si na nga def. maa ngi nan nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Khady Ndiaye di wootee HLM Grand Yoff. waay waay Ndiaye jata yaay Ndiaye waaye HLM Grand Yoff waay euh, tey kon tey feetu pak am na foofu. ah am na fi wax dëgg yàlla. def ngeen ngàllax. ah waaw. ah danoo tere nga sama doom bu baax yàkkal na ma nga lax tey mu defaatal ma añ bu ne muut. ah. waaw. ah waay waay Khady Ndiaye lii neex na de. wallaahi nii dala def ak man Géraldine da lañ koy woowee baax bay bëgg a dee. ndeysaan déggal loolu. wallaahi. wax lu baax ma dëgg wax lu baax. ah G daal mi ngi fii ci koñ bi baax bay bëgg a dee. di mën a def teraanga di def xeetu baax baax loolu daal la fi nekkee wax fa dëgg yàlla. yaa baax. jëkkëru jàmm ak njëriñ daal laa koy ñaanal. kon daal yow aawa nga wala ñaareel nga. man aawa buuru këram. Ah, am nga ñaar da am wujju. non non man kese. d'accord d'accord ah dama xam ne jullit nga rek waroo ko bañ. <laughs> jullit laa waaye daal man kese la pour l'instant. <laughs> kon léegi balaa ma lay jox sa lëwal nga jox sa alaaji aas. dama la lay ñaan. Mm-hmm. nga defal ma rek benn conseil. de sensibilisation. ci feebar bi di coronavirus te bu ci kanamee. nga wax ma kat boobu doon fecc daaru mbay bi kan la. waaw man daal conseil bi may joxe mooy. Hmm. na ñëpp topp consigne yi rek laa leen di digal. Hmm. di raxas loxo yi ba mu set. Hmm. bu 19 heures 30 jotee ku nekk génn jënd li ngay jënd. dëgg la 20 heures heure bu baax bi jot ñëpp duggaat seen ay kër. ndeysaan daal loolu laa leen di digal. waaw loolu raxasu ba set jël jël gel yi utilisé daal di toog jàpp jàpp si ñaambur dugg ci kër yi. ndeysaan loolu daal laa leen digal fajaree nag ñu daal di jóg julli rek. ñaan yàlla. yàlla jëlee fi corona bi ci lu gaaw a gaaw. alhamdulilah amin amin amin eh, kooku di fecc ci kilibu daara mbay bi kan la. xanaa salaam Diallo la man de moom loolu laa gis man. kan la. salaam Diallo. Eh, man lépp lu ma ñaan yàlla mu def te gis nga ay affaire wujju ñaareel ni yàlla daf ma ci may xam-xam. Mm-hmm. <laughs> ba tax na ku la tooñul bul ko tooñ. Mm-hmm. teg maa bañ a tooñ. ah yow daal laa gis man. mais waa ji ni mu sewee ruuj. est-ce que du ay kan année quatre-vingt-onze yooyu la sax. Euh, madame xaar ma jox la sa lawal yaag sa jëkkër lawal <laughs> bi yaa ko moom. waaw. yaag sa jëkkër. waaw. yàlla boo am wujj ci barke Serigne Saliou. allahumma amin. <laughs> xanaa bëgg nga. <laughs> waaw kay merci beaucoup jël naa. kontaan naa <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaye jàmm rek neex jàmm neex ah ñoo ngi leen di xamal ni toujours yéen a ngi en direct sur la 2STV émission bu neex bi nga xam ni mooy couvre-feu oblige di leen defal tous les vendredis Omaro di ko def les samedis sama doom jooju di ko def ah les dimanches ma ñëw ak yéen ci ay clip yu yàgg donc euh, damay ubbiwaat serveur bi tamit ngeen wootee rek bu ci kanam itam dinaan xool réaction Facebook bi euh, di leen xamal ni que Fatima Sila tamit maa ngi ko séen mi ngi taxaw pour won ñu yenn sport la ñuy def allo asalaamaaleykum allo. allo. asalaamaaleykum. maaleykum euh, wootee. dégguma la yëkkatil kàddu gu tuuti. maa ngi wootee Rufisque. yow da ngaa bar doo wax ndànk. maa ngi wootee Rufisque Mama Niane. waxal par benn benn. yow la. man la Mama Niane. très bien Mama Niane comment tu vas. je vais bien alhamdulilah. et la soirée tout se passe tout se passe bien. bien alhamdulilah. vos impressions pour la maladi du corona si vous vous, pouvez sensibiliser la population. oui bien sûr c'est pour ça on a fait mieux pour appeler. ñoo ngi sensibiliser di gën a wax sénégalais rek. li mhm. président wax rek ak li ñëpp wax. Mhm. li fa diine yeeg mhm. ñu gën a garder kàddu yi toog seen kër yi. di gën a farataal raxas loxo yi di utiliser gel yi. xale yi aussi ci kër yi. ba yàlla saafara jàngoro ji. ndeysaan. incha allah. jërëjëf maman. mais kon oui. kii nekk ci clip bi doon fecc léegi kan la. ah kooku de tonton Salam la. tonton. tonton Salam Diallo. Euh, maman. waaw. Euh, da nga ñeme alkaati ak gendarmerie. <laughs> non ñemewuma ko. dinaa la envoyé convocation maman. non tonton Salam la. boo ko gisee da nga xam ne tonton Salam la xam nga yow da yàgg neex. ah waa mais maman yow waa ji ni mu sewee. ak man ni ma nii. Ah, mais noonu la dafa yàgg moo tax. ah waaw ah, léegi yàlla na la yàlla fay léegi ma may la café Touba wala ataaya. man euh, jox ma ataaya. ok maman. mais ñooy kontaan bu baax ci émission bi quand ah yow danga baax foo ma jox la ataaya ñaanal la ci nag. vraiment yaa ngi def yaa ngi wéttal ci dimanche yi ak yooyu noonu. ndeysaan jërëjëf. vraiment kontaan nañ trop. yal na yàlla guddal sa fan. amiin lafal la cat. amiin ak musiba ak balaa. amiin feebar bi la bum la dal te yàlla boo xam ko mu daal ci barki. amiin amiin jërëjëf maman. ñu ngi kontaan trop merci tout le plaisir est pour nous donc euh, <clears throat> clip bii ngeen gis dama bëgg ngeen arrêté la image bi téel ma gone gi ma wax kan la <laughs> xale boobu ngeen gis mu téye pistolet bi. laa ilaha illallah ay waay waay waay waay waay laa ilaha illallah dinaa leen jox nag résultat bi effectivement euh, am na ñoo xam ne gañe nan dinañ jël seen numéro bi ñu woowee léegi ndax fii ku fi woote rek sa numéro euh, dañ koy jël ñi nga xam ni gañe nan effectivement clip boobu ngeen gis waa ji di fecc salaam jàllo la la ilaha illallah Abdou Salam Diallo la maa doon feccal Daaro mbay émission boobu boulevard la woon RTS yu Ndour a ngi woon toog ñëpp ngi woon toog waaw salaam Diallo mu sew moomu ah moom la woon donc ñi gañee dina leen woo jox leen seen mbaqus du muuri du du Papa Ndiaye coppet du Papa Ndiaye cu du kenn Salam Diallo mii la donc kon ñu def suñu deuxième euh, en attendant nag ñu dem jël Fatima mu won ñu naka la ñuy defee spon euh, sport euh, naka la ñuy defee sport ah sport waaw naka la ñuy defee sport ca kër ga nan dem kër si Silla te ñëwaat. bonsoir Père Salam bonsoir chers téléspectateurs tout le monde est chez lui chez elle ah gis ngeen ma xaaral ma laal sa sama gel antiseptique bi. stop coronavirus la ñu wax ah 2STV lay def chaque fois ku ci nekk toogal sa kër on va vous servir ah tey nag damay ni lu spécial mooy lan def gym à la maison c'est beau ñu rester suñu kër avec la famille mais le soir après manger mën nañ def tuuti physique ñu brûler au moins la graisse. au moins la graisse un peu de graisse ah tout à l'heure lay doon ah exercice yu simple sama gaale lay toog sama salon servir leen on y va tonton Salam le disais tout à l'heure ah jigéen ñi xam nga lan moo leen France lii la ñuy wax day débordé ak fii ci ginnaaw nu ma ko tudd mais tey nag dañuy def exercice bu simple wala ne la ñuy def benn ñaar ñett ñeent juróom on continue dix rek baax na dix rek baax na dix rek baax na. pour vous, hein, téléspectateurs, c'est scotché sur la DSTV, comme ça, tous les dimanches. Hein. gym à la maison, des trucs simples que tout le monde peut faire. Rendez-vous dimanche prochain. Personne, j'espère que tu as bougé. waaw sama doom waay waaw waaw waaw Fatima Silla ñëpp bëgg nañ moo ne léegi rek ci Facebook bi ñu ngi lay réclamer naan namm la vraiment 2STV bi sport bi. dafa am solo ndax boo toogee sa kër de vingt heures à six heures du matin doo dem fenn vraiment sa rythme cardiaque war nga ko mën a joxe donc ñoo ngi lay gërëm di la sant liñ la jëlee ci kër gi yaa ngi koy matal na mu matee comme ñëpp nañ koy matalee euh, bi nga xamee ni confinement am na ba léegi gis ngeen changement de programme yi nga xam ni moom la El Hadj Ndiaye def ci télé bi ah di ñu wax ñëpp ñuy tas takk masque. di raxas loxo yi euh, ku ci nekk sa programme changé euh, nga ci jàpp a deux cent pour cent donc yàlla muy am fay yàlla na la yàlla fay euh, sam papa maam les cuun moom tamit saan bu Adja Daaro Mbay mi ngi woote dinañ ko jot léegi moom tam ci téléphone bi ñi bëgg dugg ñëpp bëri nan ah que ça soit les artistes les lutteurs sànq jot nañ yax yi jóob yëkki ni duggoon waaye après incha allah dinañ ko jël moom tamit mu dugg Fallou Dieng tamit ah, jotoon nañ ko léegi incha allah bii di ñëw dina dugg ak yeneen i artistes yu mag mag ñëw dugg ndax ñunkat kat loolu lan leen di doyee ngir bégal leen donc téléphone baa ngi noonu allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si noo tudd ak fooy wootee. man Ami Fall la ma tudd. Ami Fall. waaw. fan ngay wootee. Ngaparou la maa ootee. ah Ngaparou ñu ngi ñu ngi seetaan 2STV. waaw dañu kaa seetaan ba mu leer. ndeysaan ndeysaan ndeysaan euh, lan ngay wax ci sensibilisation bi nga xam ni mooy feebar bi dugg ci àdduna bi. ban ah, message damaa wax ne daal. bu yeboo ñu jàppante la médecin yi wax. Mm-hmm. moo gën. Mm-hmm. ndaxte la jàngare ja baa ba ba xamante ne nii daxa laaxu daxa laaxu xamoo kan la dal xamoo kañ laa ñëw si yow waaw loolu ba yaboo bu yaboo moytu bu baax a baax a baax a baax ndax si baax ndax si baax euh, <clears throat> mbaa foofu ni ñi ñi ngi respecté confinement bi bu vingt heures jotee ñëpp daal di fatu waaw dañaa fatu de mais man xam nga da boobu dafa fekk nag ma ñëw Ocass si ma kër tànta léegi mënatumaa dellu dama ñëw nii ndakaaru si ma kër tànta dama ah. sàcc téléphone bi nii daxaa nelaw sax ma sàcc téléphone bi ndeysaan ndeysaan ah waaye kon yàlla nanu nanu ñaan yàlla lii gaaw a jeex ba nga mën a dellu ci sa njaboot allahuma amiin ndax li la dal dal na ñu bari am na ñoo xam ne Europe lañ jóge am ñoo xam dañu demoon Europe daal di fay càng am ñoo xam ne ñoo demoon Amérique fépp ci àdduna bi daal mënatuñu ñëw donc ñooñu aussi suñu xel ak suñu xalaat euh, ñi ngi dem ci ñoom ñi feebar tamit ñoo ngi leen di ñaan yàlla yëkkati leen ah yàlla yëkkati leen euh, xaaral ma may la kaas di naan ataaya mbaa xaaral ma may la kaas yow moom ku jara may kaas nga léegi nag ki nga xam ne moom lañ doon wone léegi dal leen di won photoom euh, bi ñu leen xamalee ni clip boobu noonu abdu salaam jàlloo taal bi sëñ Saliou moo ci nekk noonu léegi nag da leen di won photo bi nga xam ni euh, <laughs> xale boobu moo nekk ci clip bi photo bi lan leen di won du kenn ku dul Abdou njaay mi nga xam ni moo nekk fii ci télé bi di suñu directeur waaw Abdou Ndiaye ngi nii <laughs> abdo nekk nii moo nekkoon ci clip Omar Pène boobu noonu di doom ci El Hadj Ndiaye ak Marème Ndiaye waaw <laughs> Abdou waxoon naa la ah Papito jàppal 2STV yi Papito jàppal 2STV yi waaw Abdou ngi nii xanata xanata <laughs> jàppal 2STV yi man ngeen yàpp rek di ma wane naan di wane sama démb fii ñëpp fi am démb waaw même El Hadj Ndiaye dama bëgg ngeen génneel ma ay ay retrom El Hadj ak Bekay mbay ah képp koo xam ne deux heures nga nekkoon rek ñu génnal ma sax ay retro ma ñëw teg ko ci li nga xam ni mooy fii donc Facebook bi tam euh, ñu ngi leen di xamal nii euh, ñoom ñu ngi def aussi ay euh, ay ay ay woote donc beneen téléphone allo ma xim sama deuxième allo waaw décroché leen kooku. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam papa salaam naa la. waay maa la raw kii xanaa. xam nga ngi si yow ba pare da ngaa tegu woy bi automatiquement ma gis la ma xam ne yow la rek may woote. <laughs> ndeysaan ndeysaan waay yaa baax tudd ak fooy woote. gis xam ne ma fexe <laughs> maa ngi jégalu ligne bi moo saturé ñëpp ñu maa ngi jégalu bu baax. <laughs> noonu la ñu ngi lay di la masawu coono. yàlla na yàlla nangu ziar. ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. <laughs> maa ngi wootee Ouest Foire. Ouest Foire. waaw ci côté ah. école Iba Ndiaye Diadji bi. ndeysaan <laughs> ndeysaan. ñoo ngi ziar Ouest Foire bu baax. ana ban message ngay joxe euh, pour hmm. prévention bi nga xam ne mooy feebar bi di corona. bon lu may wax rek mooy que ne nañu respecter mesure d'hygiène yi. lépp loo xam ne aussi suñu autorité yi sant nañu ko surtout le ministre de la santé et de l'action sociale nañ ko respecter. Mhm. te xam ne ñu jël ko au sérieux mhm. te xam ne comme fagaru moo gën faju te ndimbal na ci fekk loxo ab boroom. ñoom bu ñu jógee pour jàppale ñu aar ñu ñun aussi nañu bëgg suñu bopp fonk suñu bopp ba mun leen ko yombalal. Mhm. waaye waaye yaa baax waay yow moom dama lay may juróomi kaasu ataay laa lay jox yow. merci juróomi kaas nga jox waa Ouest Foire. yëpp <laughs> ah allah ñoom ñëpp si jot. <laughs> yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay. kontaan na kontaan na nous vous rappelons que vous êtes toujours en seen émission bi nga xam ni mooy <laughs> merci merci jërëjëf. mooy euh, couvre-feu oblige. Euh, ki nga xam nag moom Pamaay ak Sidi ak Fallou ak mbaarak Ba Tafa Saw Samba Ndiaye du fay per Ba ñoom tey ñoo jàpp ci réalisation bi dañuy demaa ah, demaguma dama leen di gunge ba ci kanam tey moom bu kenn nelaw ay affaire yu neex laa leen dencal léegi nag ma tegal leen ay clip yoo xam ni humour la ay waay xoolati lii lay laa illallah clip baa ngi noonu de wuy sama ndey ay waay Anab Ndiaye xoolal lii ah yàgg naa def jaloore ci réew yàgg naa def jaloore wala ma leen def clip def moyens yi te boobu ah technologie fii mais ñoom dañoo yàgg am vision xoolal lii xoolal lii Omar Pène ndeysaan xoola Abdou ay waaye Abdou la ilaha illallah <laughs> Abdou Ndiaye <laughs> waay waay waay leen ko waaw dimbal ko doy na nag doy na doy na léegi may ma clip bu humour ñu reetaan tuuti ah yi nga xam ne ci Facebook yi ah partout ku ci nekk da ngay partagé ki nga xam ni mooy kande chaque fois daf ma yónnee ay vidéo ah ñëpp ma yónnee ay vidéo di ree ki nga xam ni ah, mooy Sadio bu Ndiaye ah ah Mané Boy ah, ñoom ñëpp jóge France daan fii càng ñoom ñëpp dañuy am ay vidéo humour aca gars yi pamaay yóbbu ma nga jox ma benn vidéo humour ma dellu si xiim sama deuxième Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont confinés. Confinés. Confinés. Dans le bi ngeen gis si réew mi rek sëñ bi nee na feebar bi ngeen gis si réew mi nag ñun taalibe yi nga xam ne nga xam ne feebar bi feebar bi wër na adduna bi wër na adduna bi wër na fépp wër na fépp ba ñëw si fii ba ñëw si fii waaye nag waaye nag jërul kenn di daw kenn kenn di daw kenn suñu borom moo ko wàccee ndax suñu borom moo ko wàccee maa leen di siyaar yéen ñëpp ah. waaw comme que joolaay dañaa sensibiliser ñay mbokka ah séeréer yi la sensibiliser nun lébu yi waaw man damaa mil mil civilisé comme que gars yi chan lay def man mil la maa def xam nga nun lewuy nu bàyyi ab kottante xa lëmusuwaate nun dañ bëgg ab lëmusuwaate baa la nuyoo rek la lëmusu mel ni ka lekk jaan gars nan bàyyi yooyu corona bii dëgg la de ka mu jàpp ba kor la balaa mu laa bàyyi musiba am waaw nu jàpp nu nu la raxasu ba mu set waaw dégg nga sama gars yi waaw maa leen a bëggee yéen ñëpp waay yóbbu na fu ne rek koo xam ne dina ma dimbali daal nga ne ko meer baa ngay jooy xar kanamam bi ni mboolub doxin bu nu ràcc <laughs> jaal bi ni moom siiñ ma ni baraayub kaani soxna ah. ceebu yàpp bu tooy xib ah. duy sab siwo ba mu fees añ yot say xale seen baay añ ngoon jot ñu tibbal la war michel mm-hmm. nga naan bu waa soo am sa ñaari tàngal sa ñeenti doomi guro di ñibbi ñu jox la 3000 ak vaccin nam naa ko sama sama mbokk séeréer yooyu ngalax lañ leen dig non waaye téléphone bi waaw d'accord nañ jël téléphone bi allo salaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo tudd ak fooy wootee. Euh, maa ngi dëkk fii xaar yàlla maa ngi tudd Coro Jaw. xaar yàlla. waaw. yàlla ñëw na wala ñëwagul foofu. <laughs> ñëw na. yàlla bi fu ne. <laughs> waaw gis nga de. mbaa yaa ngi. yàlla waaw. mbaa yaa ngi am jàmm. ñëw na ñëw na. <laughs> yàllaa ñu fi ne wallaay Diallo. ndeysaan ñu ngi ziar baax kontaan nañu ci émission bi. ndeysaan ñu ngi nañu ziar. jërëjëf. Euh, ban message ngay joxe ci bëgg macha allah bu ñu sañoon chaque jour lay def émission bi. jërëjëf. ak feu couvre-feu bi ñuy ree di xàppi tout ça macha allah macha allah yow. jërëjëf jërëjëf baax nga waaw. Eh. ñu fii xaar yàlla di la bëggee. billaay waay ñoom Sophie ñoom Ablaye ñoom Ami Ñang ñun ñëpp waaw. yéen a ngi toog daal di seetaan 2STV. waaw ñu ngi jàkkaarloo ba nga jeexal rek ñu dem sëddi. nga may ma kaar. yow kay fi mu nekk ni deuxième bi moom ñaata ngeen foofu ñaata nit ngeen. ñun cinq personnes lañu. waaw cinq mais nag da ngay respecter distance bi un mètre un mètre dégg nga waaw noonu la ñuy def léegi ana ana ban message ngay joxe ci feebar bi nga xam ne mooy coronavirus waaw ñuy wax suñu feebar bi rek yàlla fi gaaw jóge ñu mhm. def distance ñu mhm. fee raxas suñu loxo yi tout temps ñuy raxas suñu loxo yi mhm. waaw takk masque yi yàlla fi gaaw jóg daal ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñoo ko bokk xaar ñu xaar kaas nag. Mm-hmm. waa xaar yàlla ban heure la ñuy tëdd waa xaar yàlla ban heure la ñuy tëdd. vingt heures pile. vingt heures wala avant vingt heures. Ah, ma ne vingt heures pile porte yëpp tëju. ah. waaw. ah waaw xaar kon ma may leen euh, deuxième. comme que vous êtes balaa vingt heures ma day daw si ñëw. ah. waaw. Euh, li tax ngeen daw noonu xanaa alkaati alkaati dañu bëri foofu alkaati lii fi la bañ lii fi la bañ de. alkaati yi. waaw. lan lay defaat foofu. ah doy na waar. lii dara tëluñu ñun ku ñuy wax fecc mbo. pour man alkaati bu ñu gisee foofu du ñu ñëw rek dégguma dégguma. ma ni kontaan nañu xaar ma paasu suñu séeréer. kaas yaa ngi nii maa ko may waa xaar yàlla yéen ñëpp ku ci nekk may naa la kaasu deuxième. <laughs> te di leen de te di leen de waaw te di leen de di gërëm toujours sécurité bi nga xam ni ñooy nekk ci mbedd de 6 heures du matin euh, de de de de 20 heures à 6 heures du matin vraiment que ça soit la police.

donc wax nañ leen ko élage Hadj moom moo ni képp koo xam ne def na clip bu rafet dinañ la neexal donc neexal bi nag mën na nekk ay masque ah mën na nekk gel antiseptique mën na nekk koppar mën na nekk lu nekk waaye dañu bëgg rek ngeen participer ci sensibilisation bi ñooñ doon fecc loolu léegi sama mbokk séeréer yi lan dañ leen dig ngalax moo tax ñu kontaan noonu sama mbokku séeréer yi ñoo doon fecc noonu beneen maire bi di maire dëxin mer dëxin moom dégg ngeen ko mer bu neex la dégg la mu wax la mu wax neex na pak police tamit gis ngeen ko waaye ji daal du génn rek mu kon ko ci nàmpatal ci nàmpatal bi la ko kon donc euh, kon bu fekkee téléphone bi ubbeeku na Facebook bi tam ngeen jox ma réaction bi rek ñu daal di euh, def li nga xam ni nag mooy tàggatoo waaw su ma sañoon nag damay continuer gi yéen ndax Sénégal benn bopp la kenn mën koo xar ñaar di gërëm Omaro di gërëm Évasion di gërëm ki nga xam ni ah mooy Fatima Silla di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci région bi muy Paamaay Sidi Fallu Mbarak Ba Tafa Sow Samba Ndiaye <clears throat> Modou fay per Ba et toute l'équipe de la 2STV réewum Sénégal yàlla na fi jàmm am di gërëm sunu chauffeur yi ah réewum Sénégal yàlla na fi jàmm am feebar bi yàlla na fi gaaw jógee ci barke Serigne Saliou wax nag dafa metti bu fekkee wax nañ fi loo xam ne jaarul yoon ñoo ngi jéggalu du sunu sago ñi bëgg a woote yépp euh, bëgg na leen a jot waaye mënuñoo dugg ku ci mel ni sama papa maam les cuun moom tamit sànq ba léegi mi ngi woote man sax maa ngi koy woo pour mu dugg xam ne que mooy bàyyu ndey mari cuun bàyyu móori bàyyu aadi bàyyu du njaay yàlla muy guddal fan yàlla na yàlla guddal sa fan ci barke Cheikh Yoroum Loumane sa maam bala kon Loumane Mbaye jërë ngeen jëf kon maa ngi leen di jox rendez-vous dimanche incha allah ci waxtu wi jërëjëf. aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna